الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi sunu xutba tey mooy waqafaat ma laylatul qadr ay taxaw wala ay taxawaay yu ñu war a taxaw ak ay settantal yu ñu war a xool guddi gii di guddi laylatul qadr sunu borom subhanahu wa taala moom mooy ki defal xeet wii di xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko jagleel guddi gu màgg gii di guddi laylatul qadr mu nekk guddi goo xam ne mubaaraka guddi gu barkeel la yàlla di ko indiwaat ci weer wu nekk ci weeru koor ci at bu nekk borom bi subhaanahu wa taala defal nu ko ci fukki fan yu mujj ci weeru koor mu nekk guddi goo xam ne sunu borom mu ngi ñuy wax dayo guddi gi ak rëyaayam ak màggaayam mu ne laylatul qadri xayrum min alfi shahr guddi la goo xam ne dayoom ak darajaam ak màggaayam ak li ci nekk mu ne moo gën junni weer waaye sunu boroom sax melalaat na ko ci suratu duxaan mu ne inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin man seen boroom subhanahu wa taala maay ki nga xam ne wàcce naa alquran ci guddi gu am barke googu di guddig laylatul qadr kon ndeke alquran téere bi di sunu téere borom sunu borom mu ngi nu ko wàcceel ci guddi googu di guddik laylatul qadr moo tax mu ne inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka yàlla nu wàcceel alquran ci guddi googu di guddi gu am barke muy guddi gi nga xam ne moo gën junni weer te mooy guddik laylatul qadr fan la ko yàlla wàcce ci ngën gi dëkk ci kan ci ngën gi yonent ci ngën gi weer ci ngën gi xeet moom laylatul qadr di guddi googu yàlla wax ne moo gën junniy weer ci la alquran wàcc alquran nekk ngeen gi téere téere yi wàcc jóge asamaan yépp soo leen limee boole leen alquran mooy téere bi leen gën fan la ko yàlla wàcce ci dëkk bi gën ci dëkk yi muy makka ci ban yonent bi gën ci yonent yi muy sayduna muhammad ci ban weer ci weeru koor mu nekk ngën gi weer kon mbokk yi ci ban xeet xeet bi gën ci xeet yi muy xeetu sayduna muhammad kuntum xayra umma kon xeet wi di xeetu sayduna muhammad alayhi salaatu wassalaam sunu borom subhanahu wa taala desalatu leen dara lu leen di texeloo àdduna suñu dajeeg moom am ngërëmam dugg aljanna lu dul ci ñun la des lan mooy sabab tasmiyatu hadihi layla bi laylati alqadr lan moo tax ñu tuddee ko laylatul qadr mu ne boroom xam-xam yi wuute nañ ci yal na leen yàlla yërëm fi maana al qadr baat boobu di baatu qadr boroom xam-xam yi wuute nañ ci tafsir bi ak maana bi alladi sumiyat bihi hadihi leyla alsharifa ala iddati aqwal ci lan moo tax ñu tuddee ko guddi gu tedd googu ñoom boroom xam-xam yi wax nañ ci ay wax yu limu yu takku kenn ku ci nekk ci ñoom wala mbooloo yi nga xam ne ñoo ànd ñenn ñu ci nekk ci ñoom ñu gis ne ñoom nii la ñu déggee baat bi wala nii lay firee mbooloo yooyu buñ leen boolee wala wuute yooyu buñ ko boolee ñett yi ci gën a noot muy ñu ci gën a siiw wax ju njëkk ji ñoom lan moo tax yàlla tuddee guddi gi laylatul qadr neenal ann al qadra bi maana attaqdir walmuraadu ann hadihi allayla alsharifa tuqaddaru fiha maqadiru alxalaiq lu tax yàlla tuddee guddi gi laylatul qadr danañ fekk ne nee nañ sunu boroom subhanahu wa taala dafa jox guddi gi gëdd ak taqdir daf ko yëkkati luñ ci namm mooy guddi gi di guddi gi laylatul qadr ci la yàlla di dogalee lépp luy xew lépp luy am ci at bi malaaka yi di ko def sunu borom subhanahu wa taala ginnaaw ba mu ko dogalee la koy wàcce ci malaaka yi malaaka yi def ko lépp luy xew ci at bi kon guddi gi laylatul qadr mooy guddi gi nga xam ne lépp lu war a am ci at bi foofu lañ koy wàccee fa lay déparé sunu borom subhanahu wa taala mbokk yi mu ne lépp loo xam ne dafay am fi kulli am min laylati alqadr allati taliha min aamil aaxar lii am ci at bi ba mu jeex beneen at war a ñëw diggante ñaari xew-xew yi ñu ngi koy amalee ci guddik laylatul qadr moo tax sunu borom ne fiiha yufraq kullu amrin hakim ci la ñuy tàqalee ci la ñuy dogale bépp mbir moo xam ne dafa war a am ci xeet wi ci at bi sunu borom subhanahu wa taala ma ngi koy dogalee ca laylatul qadr amma at taqdiru al awal al aam fa kaana qabla xalqi alsamawati wal ard bi xamsiina alf sana su fekkee dogal gu jëkk gi sunu borom dogal mbir yi mu war a am loolu sunu borom dogal na ko balaa muy bind asamaan ci juróom fukki junni at ca malaul aala fa lay indee mbir yi nag di ko wàcce ci baytul izz muy wàcc di am amma globalement sunu borom def na ko balaa muy bind asamaan ci juróom fukki junni at loolu mooy wax ju njëkk ji ñaareel bi alqawlu saalis saani an alqadr bi maana alsharaf wal ulu ñeneen ñi ñu ne laylatul qadr li muy tekki mooy tedd ak kawe tedd ak kaweeg daraja والمراد أن هذه الليلة الشريفة عند الله تعالى ومن شرفها أن أنزل فيها كتابه الكريم وجعلها خير خيرا من ألف شهر وخنيار البنين guddi gi dafa tedd kawe am daraja bu rëy ñu la sunu borom subhanahu wa taala ci teddal bim ko teddal guddi gi daraja bim ko jox ak yëkkatiku màggal bi mu ko màggal sunu borom subhanahu wa taala ci la wàcce téeréem bii di alquranul karim mu nekk ngën gi téere moo tax sunu borom def guddi gi mu nekk xayrun min alf shahr mu nekk guddi goo xam ne moo gën junni weer alqawlu saalis waxu ñetteel bi ann alqadr bi maana at tadyiq waxu ñetteel bi nga xam ne nee nañ dañuy firi leylatul qadr nee na li muy tekki mooy xat guddi gu xat lu tax guddi gi xat ann hadihi leyla sharifa yuksaru fiha tanazulu almalaika alkiram alayhim assalaam nee nañ guddi gaa ngi tudd guddi gu xat lu tax ñu ne malaaka yi dañuy wàcc ci kaw suuf ba suuf si xat ba malaaka yi ñooy ëpp pepp suuf si loola tax sunu borom mu ne malaaka yee ñoo ci wàcc yuksaru fiha tanazulu almalaika alkiram ila al ard hatta tadayyaq bihim sunu borom moo def ci guddi gi xéewal yoo xam ne malaaka yi dañuy wàcc ba suuf si xat ci ñoom jële nañ ci abi hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci laylatul qadr inna almalaikata tilka layla fi l ard aksar min adadi lxaso rawahu tayalayasi wa ahmad wa sahahu ibnu huzayma mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na malaaka yu màgg yu tedd yii danañ wàcc ci suuf si ba ëpp pepp suuf si mu ne ñetti wax yi yépp boroom xam-xam yi wax firil ñu baatu qadr nee na ñetti wax yépp a wér laa tuaaridu baynahuma benn opposé wu ci boroom boroomam nee na wayu ayidu zalika alluga waaqi hadihi leyla alsharifa alladi dallat alayhi nusus alsharifa nee na loolu li la koy won mooy texte yi nga xam ne moom la yàlla wàcce ci saar bi nga xam ne saar bi màgg na ba yàlla subhanahu wa taala tuddee ko ab saar lëmm wax ci mbirum laylatul qadr nee na loolu rek doy na ñu xam ne kon guddi gi guddi gu màgg la guddi gu tedd la mu ne dana jaadu ci ñun kon suñuy wër laylatul qadr wa ma yushra'u fiha ak lan lañ ci santaane pour ñu def ko mu ne ñu wër ko ci fukki fan yu mujj ci weeru koor loola tax yonent bi yoonal ci ñun ñu wër ko ci fukki fan yu tool yu nekk ci weeru koor yu mujj ana lan lañ ñu ci sant ci wàllu jaamu yàlla ak lan moo tax ñu war koo wër ci fukki fan yu mujj ndax sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ko wax mbokk yi ndax du doy ci ñun su sayyiduna muhammad alayhi salatu wasalaam waxee ñu jiital waxam ci waxu ku mu ne ku mu mën a doon mbokk yi ndax du yell ñu déglu alquran ba nu yàlla woowee ci kàddu ngëm ne nu yaa ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul wattaqullah borom bi nenu yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla ak yonentam kon ndax du yell ci ñun su sayduna muhammad alayhi salatu wasalaam waxatee ñu jiital waxam ci waxu ku mu mën a doon ndax du yell ndax du jaadu mbokk yi suñu muhammad waxatee mbir mii nii la ñu gëm ko jëfe ko noonu mu ko waxee waaye tey li dal julit yi mooy yonent bi dafa wax ba pare ba seedeloo sahaaba yi seedeloo yàlla keroog ba mu taxawee ci arafat ne ala hal ballaxtu waay waay ndax matal naa yàlla moo ko waxoon ballig bi ma unzila ilayk ya ayuha rasul ballig bi ma unzila ilayk yow yonent li yàlla wàcce ci yow jottali ko keroog bi ko yàlla waxee loolu yonent bi tëddatul nelaw lekkatul ba suur naanatul ba màndi talatul dara lu dul mission bi ko yàlla jox mu mat moo tax ba mu taxawee hajjatul wada aj gu mujj mu leer ko ne fii mu taxaw dootu fi taxawaat mu ne ala hal ballaghtu waay waay ndax matal naa sahaaba yi ne naam mu ne allahumma fashhad yàlla seedeel ndax dina yell kon yonent bi mottali lépp leeral jàngale ñun ñu ñëwaat ay nit ñaan ñu su ngeen defee su ngeen bëggee nangam fii la su ngeen gisee nangam lii la ndax dana yellati ndax ñooñu di ñu indil lu bees ndax ñooñu di ñu indil sariya yu bees jaama yàlla yu bees ak gëstu yu bees ndax yàllaa leen yónni ndax bi yàlla di yónni muhammad gisoon na fi ñooñu wala gisu leen ah kay yàlla bind nit ñi natt xol yi xolu muhammad gën mu jël ko teg côté mu nattuwaat xol yi xol yi yonent yi gën mu jël teg côté mu nattuwaat xolu sahaaba yi gën mu jël teg côté moo tax yonent bi ne wallahi ma wataati l ardu baada al anbiya xayrun min abi bakr maa ngi giñ ci màggaayu yàlla ginnaaw yonent yi bu ñu paasee ku mel ne Aboubacar doxatul ci kaw suuf kon ginnaaw yonent bi bu mu paasee yonent yi paase ñi gën ci doomu aadama yi mooy sahabatul kiram sahaaba yi sax seen bopp ñoom nga xam ne ni ñu sëse ci ngën gi xayru naas qarni yonent bi nee na ñi gën ci siècle yi mooy sama siècle ñi gën ci maas yi jamono yi mooy sama jamono xoolal aboubacar ñemewul woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne wër leen laylatul qadr ci bisub sàngam wala ci nangam moom mu ñëw naan waaw man fekke woon naa yonent bi bi muy wax nangam ak nangam nangam ak nangam la te mbokk yi laylatul qadr yàlla wonoon na ko sayduna muhammad na ko bisub sàngam la waaye musiba bi dal xeet wi te mooy bëgg coow bëgg xëccoo bëgg nangam ak nangam looloonu dal keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn doon waxi nit ñi guddig laylatul qadr ban la mu fekk sahaaba yi coow di xëccoo di xuloo mu nekk fa di ko réglé ba yàlla fàtteloo ko guddi ga waaye loolu xikma la comme ni yàlla subhanahu wa taala bindee aadama dugal ko aljanna te yàlla hikmaam mooy dafiy duggumee du fi dëkk day wàcc ci suuf la jëm loolu mooy hikmaay yàlla fàtteloo sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam guddi gii di guddig laylatul qadr lan lañ ci yoonal mu ne wa yasunnu an yajtahida al muslim fi jamii layali al ashra bi taat liñ ci yoonal mooy ab jullit mu góor góorlu ci kemtalaayal kattanam ci topp yàlla comme ni ko yonente alayhi salatu wasalaam daan defee laallahu an yuwa yuwaafiq hadihi leyla almubaraka amaana soo wooree baam ñaar fukki fan ba nga naafila li des ci ñaar fukki fan yooyu sa guddi googu nga naafila jëm ñaar fukk ak benneel ba keroog ngay am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent guddi gu nekk jàppal ne tey la guddi laylatul qadr jaamu ci yàlla amaana ne sunu borom subhanahu wa taala dëppale la ak guddi gi fa yutadaaf ajruhu wa amalu ila amalin aksar min salaasa wa samanina sana mu ne nga góorgóorlu jaamu yàlla ci guddi gi ci guddi yooyu nga double effort yokk sa kattan amaana ne sunu borom subhanahu wa taala dëppale la nga am tiyaabay koo xam ne dangaa jaamu yàlla ci fanweeri at ak juróom-ñett fanweeri at ak juróom-ñett wala juróom-ñett fukki at ak ñett yoo xam ne da nga koo taxaw di jaamu yàlla subhanahu wa taala defoo benn bakkaar benn guddi rek ngay def benn guddi nga am salaasa wa samaanuun juróom-ñett fukki at ak ñett yooyu taxaw di jaamu yàlla tabaraka wa taala ci benn guddi wa inna min aazami tafrit idaafatu layaali almubaraka bishahr fima la yanfa aw fi almuharramat wa tarki altaat wa altaqsir fiha wa adami alihtimam bima azamahu llahu taala wa sharafa min layalin wal ayam mbokki jullit yi bokk na ci ñàkka taxawaay taxaw bu rafet wala perte wala sunu borom subhanahu wa taala ñàkk laa boole ci nit ñi nga xam ne defal na leen xéewal mooy nga duble guddi yooyu veeye ko ci ay entraînement weer wi seetlu bi ma seetlu mooy nit ñi au lieu ñu dem di naafila ji ginnaaw bu ñu ndogoo ba pare déedéet bu ñu ndogoo pare dañuy dem géej di entraîner ak topp tali yi daw ak dajaloo ci place yi nga xam ne place su entraînement kaay la aka neexoon ab jullit bi ginnaaw bu mu ndogoo ba pare mu dem ci jàkka yi fanaane fa naafila ba bët set kon dana yëg entraînement bu gën a rëy entraînement bi mu yëg bi mu dawee looloo tax yenn saa yi gars yi naan wa kafa bi salaati riyaada ku bëgg sport julli doy na sport da ngaa bëgg sport rek ñëwal nga kàbbar jàngal fatiha jëlal baqara ba mu jeex wala nga jël ñetti hisib yu nekk nga def ko benn rakk kon di nga yëg ci sa yaram loo xam ne soo dawoon sax fii ba Dakar doo ko yëg waaye seytaan mooy gàllankoor xeet wii di leen dugal ci ay yoo xam ne wala nga dem xiyaam déedéet toog naan ataaya toog di bolot di carte di lido di di ci yoo xam ne amul bopp amul genn jël guddi gi dugal ko ci loo xam ne amul benn njëriñ perte waxtu yi sànq jaamu yàlla yi au lieu li ci yàlla wax nga jéem koo uti ndax yow xam nga sa bopp xam nga ne ku wàññeeku nga xam nga ne góorgóorlu woo dara yàlla may la temps may la fursa pour nga dabaatal waaye nga gis gaa yi ci la ñuy bàyyi topp yàlla wa tarki taat wa taqsiri fiha waaj gàttañ lu torop tey li dal xeet bi mooy buñ ne jaamu yàlla sàngam dañ ko war a def nga gis nit ñi di gàttañ lu di sonn ci yoo xam ne amul benn njëriñ da nga gis ñoo xam ne dañuy takk ay rajo di yuuxu ba bët set julli wuñu jànguñu alquran defuñu benn jaamu yàlla lu dul ay yuuxu di di di aneer di tànqal nit ñi mbokk yi est-ce que jotul jaamu yàlla su jotatee ñuy xool naka la ko yonent bi defee woon ci jaamu yàlla gu mu mën a doon nag ndax xeet wi jotatul jotul ci ñoom jaamu yàlla gu jot ñu xool naka la ko sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam doon defee ñu defee ko noonu xanaa yëguñu ne yonent bi moom moo wax ne ci man dong la ñuy jëlee jaamu yàlla ci man amul keneen wallahi képp koo jël jaamu yàllaam nga def ko ba pare malaaka yi dinañ ko laxas sànniwaat lañ la ko kenn du ko jël loolu yonent bi moo ko wax yonent bi moo ne xool leen ci man nu ñu nu ngeen di jaamoo yàlla xuzu anni manasikakum loolu la wax yemu ci mu ne képp ku jaamu yàlla te jëlewoo ko ci man yàlla daf la koy delloo man amila amalan laysa alayhi amruna yonent bi nee na fa huwa radd kon danañ yoonal ci jaamu yàlla bi mu góorgóorlu kem talaayal kàttanam ci guddi yooyu mu bañ a gàttañlu ndax guddi yu tedd la yoo xam ne yàlla moo ko dabaatal ndax mu am tiyaaba ixwat al iman aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله ومما يشرع في هذه الليال الحرص على الفرائض وعدم التفريط فيها mbokki julit yi li ñu gën a bëgg ci guddi laylatul qadr ci bëccëg yu sell yooyu doomu aadama mu xër ci farata yi yàlla teg ci kaw mbokk yi farata kenn du ko sànq farata mooy loo xam ne yàllaa ko teg ci sa kaw loos kenn mun la kaa defal ku dul sa bopp kon góorgóorlul nanu góorgóorlu ci guddi yi ñu bañ cee sànq farata yi lépp lu nu jaamu yàlla lu mu baax baax baax li yàlla farataal sunu kaw la gën a bëgg waaw loolu la ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal ñu xër ci joxe farata yi bu baax ñu bañ koo sàggane ñaareel al iksaar min zikrillah guddi yi mbokk yi bëgg nañ ab julit mu ciy tudd yàlla lu bare bari lu bare bari laa yasaanu lisaanak ratban li zikrillah fexeel ba sa làmmiñ bi nay tooy ci tudd yàlla tabaraka wa taala ñaareel tilaawatul qur'an guddi yii bëgg nañ ab julit mu jàng ci alqur'an lu bare bari lu tax alqur'an ci guddi yi la wàcc ñetteel al iksaar min addu'a ñaan wa min ahsani addu'a alladi allamahu nabiy sallallahu alayhi wa sallam li ummina aisha radiyallahu anha wa ardaaha haythu qalat ya rasul allah ara'ayta in wafaqtu laylatul qadr بما أدعو قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه أحمد والترمذي وابن ماجه mbokk yi guddi yi bokk na ci liñ gën a bëgg jullit def ko mooy ñaan ñaan bi ci gën a baax nag mooy ñaan bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngaloon yaay Aïcha gis ngeen liñ doon wax léegi léegi moom moo dellu si waat yaay Aysa ne yonent su may góorgóorlu ci laylatul qadr waaw ban ñaan laa war a ñaan xoolal moom demul kere ñaanu boppam pourtant munoon na munoon na un ñaan di ñaan munoon na jël sax ci ñaan yi nga xam ne jàngoon na ko wala mokkaloon na ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ñaan ko waaye déedéet dafa laaj yonent bi ne ko su ma bëggee di ñaan guddig laylatul qadr pour ma dajeeg moom ban ñaan laa ciy ñaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko deel wax yow yàlla allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni yow yàlla yaay ki nga xam ne bëgg nga koo baal innaka afuwun yow yàlla da ngay baale bëgg nga koo baal yow yàlla baal ma yow yàlla yow kot yaay bale bëgg nga ku la baalu yow yàlla baal ma ndeke ñaan bi mooy ñaanu guddik laylatul qadr ñeenteel alxirs ala al itikaaf hadihi al ashara ku ci mën am jot yoroo liggéey jàmbur buñ lay créer ay problème mën ngaa def itikaaf ci guddi gu guddi yu mujj ci fukki fan yu mujj ci weeru koor ci place yi nga xam ne dañ fay jaamoo yàlla tabaraka wa taala lu mel ne jàkka yi ngir yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana bëgg a daje guddig laylatul qadr ba def ko doon jaral guddi yu mujj yi fukki fan yi mu def itikaaf ci jàkkaam jooju di madinatul munawwar juróomeel alxirs ala qiyaami layl jullit war na xër ci guddi yii mu ci taxaw di julli di jaamu yàlla tabaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam day ci guddi yu mujj yi danaan takk tubayam yeewaa kër gi dundal guddi gi yonent alayhi salaatu wasalaam danaan takk tubayam ci guddi yu mujj yi loolu lan lañ ci jublu mooy day sori soxna yi fukki fan yu mujj yi yonent bi du jege ay soxnaam ñaareel day yee waa kër gi ñépp la yee ku fi fanaan ku ne yonent bi dina la yee sallallahu alayhi wa sallam lu ñuy def dundal guddi gi ahya layla mooy juróomeel yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na fa inna man qaama laylatal qadr imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zambi képp koo xam ne da ngaa taxaw guddig laylatul qadr jaamu ci yàlla lan moo tax nga taxaw mooy da ngaa gëm yàlla lan moo tax nga taxaw da ngaa bëgg tiyaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na gufira lahu ma taqaddama min zambi yàlla dina la jéggal sa bàkkaar yépp lii rek doon na doy mbokk yi kon nekk xéewal nekk yiw ana kan ci ñun moo amul bàkkaar kulli ibni aadama xataa wa xayrul xataa'una tawaabuun sallallahu alayhi wa sallam ne doomu aadama boo gis dafa am bàkkaar koo gis rek am na bàkkaar yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ñi gën a baax ci defkatu bàkkaar yi mooy ñi nga xam ne dañuy jéggalu yàlla bu ñu defee bàkkaar abdullahi ibnu mas'ud doon na wax ne law alimtum zunubi la rajamtumuni bil xijaari xatta al mawt su ngeen doon xam samay bàkkaar ni mu toll kon de di ngeen may dóor ay xeer ba ma faat su ngeen xamoon samay bakkaar ni mu toll kon de di ngeen ma dóor ay xeer li mu bëgg a wone mooy lan doomu aadama munoo mucc ci def bakkaar bakkaar nag yàllaa koy baale wa man yaxfiru zunuba illa allah mbokk julit yi kon guddi gaangoog muy guddi laylatul qadr di ci fàttali waale nanu góorgóorlu ba bis bu ñu nee weer yi feeñ na balaa kenn ci ñun di génn këram na génn azakay muurum kooram sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku woor koor gi ba mu jeex génne woo azaka muurum koor sa koor dañ koy aj diggante asamaan ak suuf yàlla du ko nangu képp koo xam ne danga woor ba koor gi jeex nga bañ a génne wala nga ba dem julli ji ba ñëwaat génne azaka muurum koor amoo azaka waaye lan nga am sarax nga am kon guddi yi ñu nekk fukki fan yu yi ñu nekk nii ku ko ci génne baax na suñ demee bañ ne weer yi feeñ na ku ko génne ci guddi gi baax na ku ko génne ca suba sa baax na balaa ngay julli ji fexeel ba nga génne ko ci lan lañ koy génne ci li ñuy dund ci dëkk bi lépp lu nga xam ne danañ ko lekk muy lu dagan ci dëkk bi ceeb dugub mboq suukar xaalis lu mu mën a doon te mu dagan danañ ko ci génnee ñépp nga koy génneel ñi ci biir kër gi yow mi nga xam ne yaa doon dundal kër gi même sa soxna sax bu wannee lor nekk jigéenu wérul ëmb doom ja ca biir ba da nga koy génneel azaka muurum koor boroom xam-xam yi nee nañ deux kilos un kilo ak liibar ak genn waa liibar ba ci kilo ak liibar baax na waaye li gën a mat gën a wér mooy kilo ak liibar ak genn waa liibar ceeb dugub mburu ba mu egg ci loolu la ñuy génnee azaka muurum koor kon ñu góorgóorlu suñ koy génne ñu génne ko balaa ñuy julli ji ñu góorgóorlu aussi suñ ko génnee ñu jox ko ñi ko moom ñu bañ koo jël jal ko ci yenn barab naan dañ koy joxe yenn imaam yi ñu jal ko yonent bi nee na dafa am ñu ko soxla te ñooñu ci lañ war a defare seen feet kon ñi ko soxla nañ leen ko jox ñu mën a préparer seen feet loolu moo tax ñu ne ku ko génne ci guddi yi baax na am na ñoo xam ne keroog ba weer wi teroo sax lañ ko génnee lim ko yëpp daal di koy génne joxe ko parce que ki nga xam ne dafa war a feetu du ñu toog ba nit ñi dem julli ji ba ñëwaat ñu jal ceeb ci kawam kon kooku du mun a feetu ki war a bokk ci feet wi mooy bànneex bi bokk ci mbégte bi mooy ki nga xam ne prépareel nañ ko balaa feet bi jot bokki jullit yi fi ñuy jeexale mooy delluwaat rek di sàkku ci yéen ndimbal comme niñ ko fa farale di def dafa am sunu benn mbokk jigéen boo xam ne ci nawet lañ nekk kër ga mu nekk benn néeg moo fa nekk waaye ku dugg ci kër googu te nga am tuuti ci fitra ci ngëm yàlla soo génnee doo ndogu ndax yërëm boo ko yërëm te nawet baa ngi ñëw te nawet bi bu ko fa fekkee li wóor mooy bagaasam ak njabootam duñu am fuñ nekk moo taxoon ñu ne buñ ñëwee fii tàllal mbokk yi loxo ñu am luñ ko jëndale ay seng defaraatal ko néeg boobu ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ndax mu mun a am fu mu suturlu ci zuuru korité ak la ca des ak ci biir nawet bi ci weeru koor la nekk nag ku ci génne dara yal na la yàlla keral bisu bi nga xam ne dana wàcce jant bi ba mu tiim nit ñi képp koo xam ne fexe nga ba ndaw soosu bu nawet bi ñëwee dana mën a nekk continuer ca néeg boobu yal na la yàlla defal sutura allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya musabbitu alqulub sabbit qulubana ala taatik allahumma fa nasaluk an tarudduna ila dinik maradan jamila اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله